Euh, salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu ñëwaat euh, waxtaan ak yéen ci mbirum Bathio ndax cas bi depuis euh, divorce bañ ko waxee ci réseau sociaux yi saa yu ñu xëyee am lu bees récemment nag dañoo gisoon benn vidéo bu dabaay mooy kooku moo nekk jabaru Armand daal di expliquer Bathio li waral divorce am ak jëkkëram kooku di Mame Baye ci loolu nag mu def révélation yu bëri yoo xam ne neexul Bathio ci la Bathio dem porter plainte depuis lundi nag dabaay moomu mi ngi jaabante diggante këram ak section de recherche recherche ci euh, enquêteurs yi lu ñu wax mooy Dabaye expliqué na ne vidéo bi moom tuddul turu Mbathio ci li ñu liir ci presse bi samit loolu la wax ne tuddul turu Mbathio mais depuis lundi mu ngi mi ngi jaabante dem ak ñëw mais tey nag information bu ñu am euh, Sénégal am ko léegi nii dañoo jot ne Mbathio retiré na plainte bi parce que dafa jot ay pression yu bëri ñu bëri di ko woo di ko ñaan pour mu retirer plainte bi ndax Dabaye dafa nekk instant bi en état mënul euh, jaabante jaabante wax avocat mu bind lettre de désistement comme ça dabaay mën a toog këram mbàccu nag benn condition bu mu teg mooy dabaay bis bu noppalikoo na def benn vidéo daa di euh, leeral lépp en te ba pare euh, présenté ko ay excuse donc euh, foofu lañu toll ci mbir yi dabaay instant bi mi ngi ñibbi këram bàyyi nañ ko mu ngi mi ngi mi ñibbi ci jàmm ak salaam